sëriñ Abdul Ahad Mbàkke nee na moytu leen liy niru niru du dara te du dara ndax boo sàgganee mu dox sa digganteeg lii dara